mooy kuréel gi sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke tànn ngir ñuy saytu aka toppatoo mbooleem lu aju ci liggéeyu sëriñ Abdoul Ahad ci wàllu xam-xam ak waxtaan ak ya ci aju yëpp ñuy saytu itam mbooleem lu war a jëm ci màggal gi ci lu ñuy jariñoo ci wàllu ruux ak xam kuréel googu nag ci ndigalul sëriñ Sidi ñoo ñëwati ngir waajal màggal gi berndeel yiñ leen daan berndeel ci wàllu ruux ak xam-xam kuréel gi ànd ak yéen fas yéene leen uh, indil tomb yooyu mu daan ànd ak yéen ci ay témoignages ay fàttali yu jëm ci sëriñ Abdul Ahad Mbacké ngir ñu nafar ko fàttali ko ay jikkoom ak xam-xamam ak i jaar-jaaram nu ànd ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Mokhtar ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno ak bokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi niki sëriñ Abdul Ahad Jaxate mi jiite kuréel gi ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Maam Asta ak bokk yi ko àndal yépp ñu ñëw nag tey fii ci kër sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadil di kenn ci sëriñ Abdul Ahad waaye itam di xarit ci sëriñ Sidi di borom xam-xam macha allah nu bëgg mu dikkal nu ci diggante sëriñ Abdul Ahad ah, lan la nuy indil ci moom ci ay jaar-jaaram ci ay jëfam ci ay jikkoom ci ay meloom ak digganteem ak moom waaye itam diggante sëriñ Abdou Lahad ak alxuraan nu fas ko yéene dalal moom incha allah teewlu waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziare bokk yu tedd yi fi teew yëpp di teg ziyaare bi ak nuyoo bi nag ci boroom jataay bi ak borom màggal gi ak kilifa màggal gi mu di Cheikh Mouhamadoul taxa ndax mooy kilifa yoon bépp mooy Serigne Touba ñu ñaanoon ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér ba li ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko sago te nu fekke ko te ànd ko ak moom di barke borom Touba ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ko ñaanal Serigne Sidi Mouhamed Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad mi kilifa kër Serigne di xalifa Serigne Abdoul Ahad njabootu Cheikh Abdoul Ahad rek góor ak jigéen mag ak te buñ tuddee sëriñ Sidi tudd soxna May Laxaat rek ñu yóbbaale ñu ci des ñëpp suñu bokk lañu suñu wëlër lañu suñuy mag ak suñu rakk fa nekk ak suñu xarit ñu leen ziare ñëpp ziare sëriñ Abdou Lahat yu yi fi ñëw di leen ci liggéey bi ñu boole ndax itam Cheikh Abdou Lahat ku koy liggéeyal ku la ci boole bëgg a laa dimbale ndax moom dundam nga lépp ab liggéeyal Sëriñ Tuubaa woon dundam nga lépp alxuraan la woon dundam nga lépp ak murid la woon dundam nga lépp lu baax la woon kon ñu leen di sant ci loolu bu baax a baax ñaan ñu tabbi ci ak bismillaahi rahmaani rahim te jeexale ko daanale ko ak alhamdulilah rabbil alamin eh, ndax eh, léppam di doon yiw tabarakallah may wax nag ni wax ci moom nag yomb na jafe na yomb na ndax loo wax ci lu baax rek la ci des ko ëpp mi ngi mel ne rek nga fekk géej nga tànq ci kook la ci des kenn xamuñu toll par rapport ak li nga ci jël moo tax wax ci moom yomb ci wet googu loo wax ci lu baax loo xalaat ci lu baax ci ak jub ak baax bëgg lu baax dimbalante bëgg lislaam am dignité xam boppam ci lu baax loo wax ci lu baax rek ma nga ci moom waaye jafe gi tam mooy lu baax la ci des ko ëpp bu ko defee muy lu jafe te yomb en même temps kon bu ko defee xanaa dañ ci barkeeloo benn benn kàddu rek eh, yoo xam ne kàddu yu barkeeloon ak kàddu yu feeñal yéene waaye li ngeen may li may wax yéen ma gën a xam sax xanaa da ngeen a baax rek waaye eh, moo tax ngeen sagale ñu kaddu gi waaye li ma ci wax lépp yéen a ma gën a xam muy koo xam ne ngeen ko xamee dundam nga xañ na gudd na gàtt na eh, ndax boo ngeen xoolee soixante quinze ans la dund 1914 di fi ñëw njaareem jóge fi 1989 ci Touba soixante quinze ans wa umri ilal jinaani aidu ndax mu daanaka soixante quinze jëm soixante seize ans la la fi la waaye dund góor fees nag macha allah fees ci liggéey fees ci fulla fees ci ak njub fees ci yaraate fees ci jàngale eh, eh, ñu mën a wax ci moom ci côté yu bëree bëri digganteem ak njaboot gi digganteem ak mbokki julli yi digganteem ak njabootu boppam digganteem ak dëkk bi digganteem ak bi digganteem ak alxuraan nga xam ne mooy thème central màggal gi lu ci dem ñu mën caa wax lu bare bare bare li ci li li ko gënoon a ñor muy liggéeyal sëñ Tuubaa te naka jekk noonu noonu la mos a mel ak it yàlla may ko xàmmee ak ràññee àdduna koo xam ne damay wax ne Cheikh Abdoulaye am d'état la ko mënee waxee ci waxee ngir leeral kàddu am d'état mooy ku gérer mbooloo moo xam ne nga xam ne leen teer da leen di da xam fa nga leen jëlee xam fa nga leen jëmee tam di ko di ko def ci lu leer nekk un grand communicateur ngeen baal ma ci waxee bi mu balleex la wax wax wax kàddoom macha allah ñëpp xam nañ ko bu mosaan wax bu mosaan tàmbali rajo bi ñu ne Cheikh Abdoulaye wax rek bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñëpp daan teg moom murit ak ku dul murit ak ñëpp daan teg diglu muy wax ndax wax ji am solo am maanaa di dëgg goo xam ñëpp cee mën a jëriñoo mu koy defee façon boo xam tam bu yéeme la da damay wax ne Cheikh Abdoulaye ni mu maîtriser commun technique de communication dafa yéeme bu ngeen xoolee discours ba léegi rek discours bu ci nekk rek ni mu koy taxaw mu koy taxawalee waxuma la wax ci biir waaye forme ba rek def introduction def développement def koy partie def conclusion nga xam ne discours yi ko ne mos a def ci àdduna noonu noonu lay mel dama mos a am benn xarit ndeysaan ci ci def ay thèse le discours du roi Hassan II ma ne ko ah, am nañ ko xam ne boo ko xamoon ne doo doo def doo def thèse ci Hassan II <laughs> ah, ndax kenn ne na muy waxee eh, boo ko déggoon da xam ne Hassan II jàmbaar loolu waaye bokkuñu sax bokkuñu waaw yàlla mayoon ko itam li ëpp ci discours am na nga gis xam laa di waxtaan yor wax yor kayit waaw bëriwul xam bu fekkee am na bëriwul <laughs> te biir wax jooju na mu koy agencé waxuñu dara waaye ak ay ni mu koy defee loolu dafa yéeme yéeme koo xam ne loolu dayoon na waxtaan waaw ay alxuraan ji ni mu koy defee ak ak bi ak xadis yi ni koy waxee dafa yéeme day mel ne bu wax aaya du ko xalaat day mel ne aaya ba jékki-jékki ñëw rek ne wax ne wax wax ma <laughs> wax wax ma ndax mën nga mokkal alxuraan sax bëgg def istishaar ci alxuraan waaye da ngay taxaw xalaat waaw alxuraan nag ni mu jafee rungi yéeg ni mu waaye moom du du hésité waaw lu mu ci bëgg indi rek da ko dala indi ci saasa dama ko indi ñu ci nettali xista bu gàtt ba dama ci benn point ñu eh, dafa am benn eh, ayit wax ma am ku jël si julli gi ndeke manière fan ko jël see am na lu ci xaw ayib mu mu enregistré ko booy bëgg dem nag di ko tàggu si pour pour mu pour dem xam boobu direct yi daf koy bëggul dañ koy enregistré ko bi mu nee bay bëgg gont nag mu ne ndeke lim lim jël ci penc ma daf jàpp kii bu baaxul mu nga a jaaxle nag na ko wax sëñ bi euh, sëñ Modou baax ji xam nga moo ko ne ko waxee ne ko ah ko sëñ bi mu dem ne ko ne ko ne fekk ne am na ko jëloon ci benn ma jot fan bu baax mu ne ko dax la booroon jëlee mu ne ko am na ko indi te ñëwaat nee na mu indi ko nam ko waxee woon ci penc ma la ko waxaawaat ci néegam <laughs> te la ci suba la woon lii lii ngoon gi nee na bi ñu comparé ñaari ñaari wax yi dafa mel ni ko da ko da ko transmettre ko copier rek su sotti ko ci beneen cassette bi nga xam loolu loolu ak may la waaw kilifa bu baax ne na daan wax ne sëñ Abdou sëñ Abdou Lahad di ni muy def alxuraan eh, eh, li ñu ko sol la waaye ba ñu nekk ci daara gi nangam ak nangam loolu rek doo ci sañ a àgg moom <laughs> ñu ko sol la waaye ba ñu nekk ci daara gi nangam ak nangam xam ne ni mu defoon alxuraan ñëpp xam xam nga alxuraan xam mu waaw muy personnalité boo xam ne tam nag euh, damay wax ne dafa dem ba li ñuy wax lugam lugam ci yoon wi lug moom mooy baylaat ba baylaat moom ku ko sol nga xam ne la ñu sol yëpp rafet na kaar waaye ku na koo sol da nga gis chrétien sax dañu sol grand bu rafet dul seen def naa am def yëpp waaye bàyyilaat moom murid rek koy sol waaw moom ko su ko sol li <laughs> nga xam ne murid la loolu dama wax ne mën na ci am brevet d'invention xam ne couturier yu mag yi ñuy def di inventé dara ñu leen cay euh, enregistré ko muy dem ci sa tur bàyyilaat na ko def ndax day yëri yu cosaane yoo xam ne ko sol la ñu xam ne murid nga te bi nekkul Serigne Touba daaw ko sol nekk na Serigne Touba ab jëru solo ko dafa jékki-jékki dañoo xëy rek gis mu koy sol te moo ko inventé taille beeg ni mu mel ak poche yeeg baat beeg yi fi nga xam ne adapté climat bi xewal bassin yi nga xam ne gannaaw yàlla bassin moom war nañ ko war nañ ko jox droit docteur ñoom itam ndax ni ma ko bu njëkk man nga xam bu ko njiit ko doon waaye moom ni mu ko xewalee moom far ba ci kol ga sax mu def ko bassin far waaw ba noppi indi indi indi ñaw bi muy muy yéeme di culture murid boo xam ne foo soo ñu xam ne murid la waaw indi personnalité murid boo xam ne am na jamono na uh, uh, diggante yoo xam nekk fa murid de daan xaw a waaye ci nekkam li ñu ñemee nag ñeme ñeme goo xam ne ku nekk murid da nga ko ñeme ndax boobu ni mu ko fësal ak ni mu ciy doxee ak ak ak ak ak muy loo xam ne lu yéeme la boobu côté képp boo ci yemoon tam itam doy ne ndam nga xool yoon yi ni mu ko delloosee suñu Fallou Mbacke daana wax ne moom dafa dafa lawet mun ñu dañ ko miin ba maam la waaye bàyyi dina ñëw yar leen fi ne boo seetloo adduna sëpp bàyyi laat la ñuy wax doo kenn ku ne maam laat wala <laughs> ñu seen maam sax duñ ko waaw loola eh, la magam ju baax ji ne woon man maam laam ñun ngeen mu noppi waaye bàyyi leen ñoo yar leen waaye defe naa bi ñëwee ñëpp xam nañ ne yar nañ waaw ndax raxas bu mu def ci yoon yi def ko ci dëkk bi moom kéemaan la xam ngeen ko baax li ma bëgg a wax dëkk bi am na jamono waar lool yu bari bari xewoon na fi na fi xew waaye moom bi ñëwee ni mu ko delloosee xam ni fi ñu toll Touba am na certificat boo xam ne ci àdduna mooy bu nga mën a wax zone non fumeur bi nga nëree ci àdduna si mooy Touba àdduna si dem di dem ba da nga xool na mu jiite woon sax charia bi ko jiitu woon nga xam ñëpp xam nañ ne xañ na euh, pon la ñuy wax waaye sàngara ak kenn kenn wérantu ne dafa moom wax nañ ci ba tey bind nañ ci ba tey dafa ci waaye waaye cigarette rek ak pon ni mu ko ayee ci dëkk bi nga xam ne léegi addu si dafa dem ba baar yi sax dañ ci ay tux far ba baar yi waaw dama jëlee la oto yeeg saxaar yeeg barab kii mais baar yi sax da dañuy ay ko ci tux xam nga lu yéeme la moom ni mu leen anticiper ni mu leen jiitoo dëkk bépp mu ay ko fi nga xam dañoo dox bu ñu bu gën a ci àdduna si mooy Touba dëkk boo xam amul cigarette wala koo fi def kon bu ko defee loolu di di di ndam loo xam ne eh, liggéey nag Sëriñ Tuubaa liggéey bi rëy rëy rëy liggéeyal ko ci taalib yi liggéeyal ko ci njaboot gi liggéeyal ko ci dëkk bi dëkk bi nag moom day wax ne foo gëstu gis lu seen laa def su a wax tey foo tax da ngay dégg naan la ngi maa ngi maa ngi maa waaw ci jumaa ji dëkk bi ci daara kaamil ci université bi kër Sëriñ Tuubaa gi lotissement dëkk bi forage yi lamp yi mu euh, armel yi armel yi bees yi mu defarlu loolu lépp rek lu ci nekk rek réalisation la yoo xam ne eh, yéeme na ci réalisation yooyu naa ci wax kese bu doy waar léeg-léeg ma koy faral di eh, ndax njàmbaar gam ci def ak doylu ga ak fitu ak xam sëñ Tuubaa dafa am benn eh, benn eh, mbokk nekkoon koo xam ne Ducré dafa nekkoon mudir maktabil iqlimi rabita alami islami ci Dakar man ligue islamique mondiale nekkoon directeur bi Dakar moom dafa dafa jaxasoo woon ak benn ambassadeur bu Arabie Saoudite bu nekkoon Dakar ku ñuy wax Abdourahman Al Tubeish ñu ñu fàttali ndeysaan nee na bi fi sëñ Abdoulaye nekkee nekk ci projet am yooyu maanaam bi muy jokkale jumaa ji tabax daaray kaamil defar waastar xëy di defar ay na raxmati mu defar kër sëñ Tuubaa gi defar université bi ambassadeur boobu fi nekkoon Dakar mën nañ ko tudd léegi ndax faatum na yàlla ko yàlla yërëm def na Dakar fukki at ak juróom-ñaar musta ñëw Touba di ko dégg rek Touba mu yàgg ndax li may wax Abdou Abdou Wahab Doucouré moom moo ko nettali Abdou Wahab dafa àndoon moom bi mu ñëw Abdou Wahab Doucouré waa Mali la waaye ambassadeur boobu Arabie Saoudite boobu Dakar fu mu san jëm turam ñooy ànd nee na benn bis boo ko defee daa bëggoon dem Touba ndax ñoom ay suufee ndax su ko defee danañ mën a nga rusaa mu ne waaw ah ñoom ñëpp lañ fi nekkal dañuy woote rek bu ñu daal di woote sëñ ñëw mu ñu ñëw moom mu ànd ak ambassadeur ak ñeneen ñu ñëw am sëñ bi booleel ci mbokk yi bokk nag sëñ Modou Mamoun Niang ak sëñ Moustapha ak sëñ Saliou ambassadeur ñu ànd dem xool projet yi ma lay wax xool yokk bi ci jumaa ji xool daare kaamil xool kër sëñ Touba gi xool université bi buñ ko bi ñu toogee ba noppi ba ca ngoon nga ba tënk nag sëñ sëñ bi nee na mu laaj ambassadeur bi nag nee na bi ne ko damaa am ñaari yëg-yëg yëg-yëgu mbett ak yëg-yëgu kersa loolu mooy lan mu ne yëg-yëgu mbetteel bi mooy am na fukki at ak juróom-ñaar Dakar mosuma ñëw Touba ndax xam nga yooyu ñu nekkoon rek ma daan dégg Touba nag da gis image yi di gis jumaa ji di gis photo yi mais yaakaaru moo ne agsi na fi mu ñëw gis jumaa ji di mu toll nga xam ne bu ma ko ne jàkk ma dina mën a war la ma fàttali a yéem mu ne ko ba sa mag Mouhamadou Fadil jiite woon ko daan ko julli booba léegi ñu ko julli ajuma yéemoo ci loolu nga ko yokk gis na gis naa projet yokk bi mu ne ko yéemoo ci loolu yaa ngi def daara kaamil bu bibliothèque yaa ngi def kër Sëñ Touba yéemoo ci loolu yaa ngi def université mu ne ko loolu mooy mi ak ak si gigantisme bi ko wax mosoo ko mosoo ko mosoo ko mosoo ko mosoo ci sàkku ndimbal mu ne ko ba mooy yii fii fi toll mais mu ne ko mooy li ñu yàlla may alal ci Arabie Saoudite suñu benn dërëm mësa dugg Touba <laughs> loolu mooy kersa gi mu ne ko yaa ko waxal sa bopp de <laughs> mu ne ko waaye dama bëgg dafa la am lu may ñaan mu ne ko lu mu doon mu ne ko dama bëggoon erreur boobu ñu def nga dimbale ma ñu soppi ko ma ñu dabaatal ko ndax kooku moom ambassadeur boobu itam ba tey ambassadeur la euh, yàggoon Dakar waaye dafa bokk ci daanaka na ci rakki roi Fahd fi nekkoon ku ñuy wax Amir Majid moom moom ñoo bokk benn ndey nga xam ñooy Al Toubache Al ak Al Saoud ak Al Cheikh ñooñu bokk na ci ñu coalisé woon xeex Arabie Saoudite ba créé état ñoom al altruisme dañ fa am doole lool nga xam ne am koo xam ne doomu Abdoul Aziz la moom ambassadeur boobu ñoo bokk benn ndey léegi ambassadeur moo moo doon wax seen li may li may wax nii ne ko daal ñaari sentiment yi mooy mooy li ngeen def daanaa ko dégg waaye mosuma foog ni la daanaa gis image yi waaye xaw yaakaar moo ne fi acte na fi ñaareel ba mu ne ko yaakaar xol sa bopp mu ne léegi nag li ma lay ñaan mooy dama bëggoon mu ne ko roi français dafa ma wax ne lu ñuy def Sénégal ci islam rek boo ma ko waxee ma français jamono yooyu ñu ngi waajal OCI bu njëkk ba xam ngeen OCI bu njëkk ba Saoudi yee ko financé fii ñuy wax King Fahd Palace bi mu lay wax moo ko dox nga xam ne dañu euh, roi Fahd moo ko financé moo tax ñu ko d'ailleurs dañ caa dugal ay yëf sax ndax euh, ba neen ko waxee ñu ne ko amuñu fu ñu tàll ay gan da leen jox projet bu ngeen ma jox suuf rek ma tabaxal leen gaa yi dem jox projet bu rëy lool bi ñëwee bi tabax ñu <laughs> ñu gëfin ko xam naa ba mu toll ne mais le roi Fahd financé wala ëpp na lii léegi nag mun si implant da bëgg léegi ni may ni may dabaatee loolu nga jox ma sa projet yi muy léegi yokk ci jumaa ji ak daara kaamil ji ak sëñ ak université bi ak ay no rahmat yi yëpp ma jox ma jox ko waa Fadu wóoram dana ko financé ba ma jox ko si caabi ngi ñu dabaataleel ko loola waaye sëñ Abdoulaye ci ful jël ak personnalité ba mu ne ko mën liggéey suñu Tuubaa ma ko kenn dama ciy nekk lu ma am def ci li ma jox def ci bu mu àgg waaye ma ko jox kenn boobu personnalité xalaatu sëñ Modou Mahfouz yi ak sëñ Modou Lo ngaa bu ko leen waxoon loolu dañuy dem waxuma plan yi defoon waaye dañ koy multiplier par <laughs> te boobu Fatou lu mu ko wax mu xam nga arab yàlla may na leen dafa xol bi dafa rëyoon te dafa bëggul Sénégal mosu fee ñoom yi dafa bëggul Sénégal waaw ambassadeur boobu nee na ma bi aussi bi daf ko ne suñ doon séddoo gi yéen suñu reer sax danañ ko séddoo ngeen def aussi bi waaw nga xam fi mu ko àggoon kooku nag xam nga kooku fi teewal bu ne jox ma sa projet yëpp man liggéeyal la ko ba jox la caabi nga naan ko xalaat <laughs> liggéey sunna bi ma ko joxe loolu loolu ci ci laa ci laa ko mos a dégg <laughs> moom laa ko mos a dégg ak doyul ak xam xam sëñ Tuubaa mu ne ko mu liggéey suñu Tuubaa du ma jox kenn dama ciy nekk lu ma am def ci li ma jox ma def ci àgg jàmm waaw nga xam kooku kooku beneen mbir la mais mbir la mu jaar ci yu mel noonu nag yi bëree bëree bëri nag ci ci ci ay kilifa yoo xam ne eh, jaar naa ñoom foofu defal leen loo xam ne teraanga ja bëri woon lool nga xam naa wax ne teraanga bu ñu duut yàq day mel ni day mel des na xam te daa ngay ñam sa bu lu ko daan defal day wax nañ tàmbale ci raxasu raxasu mi daa ngi fàttaliku benn bis ma dem fa am kilifa yu ma àndal fa mu am ko tudd sax ci mu ne ko Matar indil foofu mu dem indi keesu maa ngi fàttaliku gazelle ñun ñett lañu woon sëñ bi ak ak ñaar ñu ma àndal wala ñett ñu ma àndal mu ñëw mu ne ko mu ne ko ubbi ko mu ubbi ñetti butéel ubbi jox kee jox kee jox ke daal taxaw mu ne ko dëgg la nga ubbi ko moo ne bëgg na mu ubbi kees gépp far rek <laughs> te ñett ñi fi nekk ñëpp xoolal ñeent ku ne jox na la butéel bu nekk nag ne tekk nag xam mu nit rek ne tekk ak ak ak caab clé yi biir butéel yi ne tekk mu ko dama la ubbi ko waaw daa <laughs> xam ne teranga jëlee si jublu waaw mooy li nga wax ne teranga bu yàq rek des na waaw waaw de mooy li nga wax ne da ngeen ñii dañuy def dama yàq nit ñaar moo topp leen teranga dañ leen defal ñetti xar wala ñeenti xar ne xam naa ne ñett ñi mënuñu lekk mën xar sax waaye te nag la laa ko dugg laa loolu da ko def ba gis nga suñu mbokk yi fi sax ba dañoo bu ñëwee Tuubaa bu ñuy dem seen oto yi dañ koy remplir ba fees na koy def buy dem nañ ko dugal ci <laughs> na ba tay ba tay waaw ko ba tay euh, yàlla mayoon ko nag xel moo xam tam damay wax ne kii kiimaan la zaka o aqli mi saara mis la wax yi am na fa ko sëñ bi waxee loolu sëñ bi fatal na ko waaw ni mu li mu xam kaar ak li mu am ci ko ak li mu xam ci xam nit moom dégg na sax dañuy nettee daana wax ne su ma nit di wax ci biir nopp nangaam loo xam ne am du dëgg day mel kenn damay wax ci benn nopp li muy wax di amut nga xam ne xam nit ñi xam ngoo xam ne te loolu expérience bi la dafa bari fu mu jaar xam adduna xam xam xam xam diine xam sëriñ bi bëgg sëriñ bi fonk sëriñ bi waaw kon bu ko defee ñu mën a wax ci fasciné réew mi nag maanaam réew mi ñu ngi ci ñu ngi ci fasciné du caageenu murid yi rek du caageenu njaboot gi du caageenu dëkk bi waaye réew mi la la la la la la fasciné dafa am benn euh, euh, mbokk irakien boo xam ne ne fi mu gis photo Sëñ Abdou Lahad kooku sax mos a fa waaye yéen a bëgg wax ci ni mu facilité nit ñi rek jëmm nekkoon coopérant euh, fi ñuy wax Bangui centre Afrique nee na ambassadeur fa nekkoon ambassadeur soo taalib bi mu rek waaye mu tam Sëñ Abdou Lahad ci saalam coopérant boobu professeur la ci université Bagdad en même temps di imam ci jumaay Cheikh Abdou Khadir Jilani nee na bi mu ñëwee gis ko nee na muy xool fa ne ko kii ku doon kii di nitu yàlla kan la nee na mu commencé expliqué kii doomu Cheikh Ahmadou Bamba la mooy Cheikh Abdoul Ahad nangam nangam mu ne kii di xuma kan la waaye nit ku baax la nga xam ne noonu la yàlla dogale ba kooku mujj na dem dem ba ñëw Sénégal sax ba ñëw Touba Serigne Saliou ko personnalité bi rek photo bi rek ba message waaw bu waxul dara sax photo bi day message waaw bu ko defee te it boo xoolee par rapport ak Cheikh mu Moustapha ak Serigne Fallou ju ko jiitu ni mu sore ñoom ci âge nga xam ne ci zahir am nañ ay ay ay tout tànk ay ma ma wax ay leer yu ko mag yoo xam ci zahir ñoo ko mag soxna Mbène sëñ Abdou Karim ak sëñ Cheikh Fatma nangam daal kon day mel ni ñoo ko njëkk a feeñ mu ne mag sa waay ñoo ko njëkk a feeñ te ci la Aboubacar waxoon rek ne Mouhamad akbar di akbar min nii walakin wulittu xablahu moom mooy mag waaye ñoo ko njëkk a feeñ <laughs> ku mel ne sëñ Cheikh Mbacke ku mel ne sëñ Mbacke Madina ñooñu sëñ Abdou Karim soxna Mbène Fall ñooñu ci zahir ñoo ko njëkk mooy mag waaye ñoo ko njëkk a feeñ waaye teew da nga xool bi mu remplacé sëñ Fallou waaw ni mu feese jamono rek ak jamono yooyu ak sëñ Fallou li fi doon def dañ ne boobu fu jógee nangam nangam nangam waaye gis ngeen mujj gi diggante bu gàtt rek mu àgg foo xam ne mu kéemaan la xam ne kon ku ñu waajal bu yàgg la kon ku ñu waajal bu yàgg la mu daan ko doxee ñu wax dafa am wax bu bu sew te xóot bu mos a wax Sëñ Fallu wax na ci lu bari bari jaxasoo nag moom lool dañ ne Sëñ Fallu ñëpp xam nañu lu mu ñaan yàlla def ko mu ne waaye cat da ca dal Sénégal mu ne cat la mooy bu ñu yëgoon dañ koy wax mu ñaan xaalis xew yi te aajo yi faju <laughs> xaalis xew yi te aajo yi faju xam nga fër-fër ji yëg këran këran yëpp ko waral <laughs> bu xalis xëyoon mooy aajo yi faju kon àdduna daal nekk noflaayu kese rek ba dem àjjana. kenn du jàmm xaalis. waaw waaw fi ñu co coole lépp ci xaalis ko yu baax sax la ñuy baax ba léegi léegi xam nañ xaalis léegi léegi xam nañ xaalis bu ko defee rek muy ku ku ku koo xam ne. dañuy dañuy wax ne fulla ji ak positif yi dafa dem ba wàll ko sax ñu yi. dañ ci nettali anecdote bu saf xoroma xam nga daa nekk tubaab beleel. da da léeg-léeg bi day génn ci ci penc ma. toog ci garab bi te moom day toog ci suuf garab day mu ne du ci suuf bu toogee ci garab bu ñu wër ko ba bari bari xum mu jógaat dem ci garab ñu ne am benn bis nag mu def ko toog ci garab di waxtaan ak yàgg mu xaw a xum mu jóg dem ci keneen garab benn xale di ko mu ne ko bul accéder mu ne ko mun jëm suuf mu ci yow sama kër bàyyi dafa nekk fee may jàll mu ne ko loo tudd mu ne ko Abdoulaye mu ne ko waaw kay <laughs> ñu fi nga xam ne dafa Abdoulaye ko yam ne ko bu bu wax si nee na ngeen toog fa toogal na mas mu ne ko man jëm suufu ci yow dama jóge sama kër ba ñu yónni ma fii ma lay romb waaye jëm suufu ci yow mu ne ko nu tudd <laughs> Abdoulaye ne ko waaw <laughs> am ne fulla jooju dafa dem ba wàllu ko turandoo yi sax waaw ah, wàllu ko turandoo yi te ñu wax ko tur ñun mu ngi ko juróom ñaari jikko loolu yoon te defe naa ne tudd Abdoul Ahad eh, bokk na ñu ko tudd Sénégal waaw lu ko jiitu ci Sénégal moom dañ ko dëggul Abdoulaye nangam nangam ci di ko histoire yeeg yooyu ku tudd dëgg moom defe ci moom lañ ko njëkk gisee waaw moo ko jëkk Sénégal te it di li ko yàlla def ci turandoo Sénégal bari na lool ñu ngi fi ëpp turandoo bariwul ñoo xam ne duñuy dañuy taalibe murit te te te te tuddee nañ ko tuddee nañ ko ay ay turandoo bu ko defee muy koo xam ne nag da yàlla dafa dogal eh, ma xawoon ko miinte bu yàgg ci Daaru Salaam xam nga suñ bu maaw ni mu ñu tuddee ma yaroo fa daroon xaritam xam nga sax ay leeral am na tudd Mouhamadou Mamoun am na tudd mu daan fa ñëw nag eh, xam nga ni mu am yërmande rek eh, nga xam ne gars yi ma na nga xam ne am eh, fi mu daan dal oto bi dafa am fa gars yi xam bu jógee daara jëm jëm sëñ bi dañ bu ndax ndax oh, <laughs> <laughs> bu ñëwee ko mu doon ñëw mu doon woon añ nga mu ne ko waaw mu dem seet seet bool bee wala mu doon woon reer nga dama seet bool bee waaw euh, nga xam ne te loolu bu yàgg la année soixante yi la soixante deux soixante trois soixante quatre jëm noonu wallaay eh, gannaaw bu mu am benn mbokk boo xam ne eh, ñaari anecdote pour nga xam ne du fàtti sama waajur jigéen mu nekkee fii ne dafa am benn bis mu ànd ak mu ànd ak eh, sëñ Omar Bousso suñu mbokk mu nekkoon fii ak ak soxna ak soxna Absou Bousso waajuram ñu dem si yaara jógo xam naa nag sëñ Omar def na ne sëñ du ko du ko xàmmee mu koy nuyoo nangam nangam kii diw la kii diw la kii soxna doom soxna jëng nangam nangam mu ne kii kooku xam naa ko bu yàgg jëkk sëñ Fallou yéen nga dégg mur maa mun a nga xam ne maa ngi yor fii ay lettre mu daan bind ndeysaan nga xam ne bu ñëwee vacances mooy dem dama koy tàggu ji bind ko rek dama daan tontu yor naa ci wax ñaar ñett ba ma jeex xarit xam dafa nekk préfet Kaolack defe euh, de sëñ bi xamu ko nee na mu ñëw fii soxna si ne ko dama bëgg leen siyaar si am laat trois belal waaye dama mu ne ko ko ñu yàgg fii kër sëñ Fallou ne dafa am ko ñu waxtaan ci garab gi waaye bu noppee rek mu yóbbu la ci nee na mu toogee mu sëñ bi xëy feex mu de wax ko mu ne ko mu ne ko na agsi defe ngeen xamu ko nee na mu nuyoo kii majan xarit jëng la nangam nangam taalibe suñu faal nangam nangam ne waaye kii xam naa ko bu yàgg ba may góor Daaru Salaam Tuubaa bokki barga bàyyam ñëw na fa ba am fa ñetti fan <laughs> te bu ñu xam xam woon naa ko kër Sëñ Fallu boobu day gone nag waaye xam woon naa ko kër Sëñ Fallu <laughs> nga xam ne du du fàtte maanaam xóotu zakir bi la bëgg a wax vek loolu moom yàlla da ko cee may waaw loolu moo loolu sëñ bi wax ne sëñ bi lii xamu ko bi nekkee ci daara ji waaye nangam ak nangam waaw maanaam sëñ bi lii lañ ko sol waaye lañ ko liñ ko sol dafa bari ko sol dafa bari e, mu mu feeñ ci wàll gépp nag ci doxalinam digganteem ak alxaam e, doxalinam ak ñu ko wax digganteem ak njaboot gi digganteem ak dëkk bi digganteem ak yoon yi digganteem ak kilifa yi bokk ci yoon yi sax digganteem ak kilifa yi bokk ci yoon yi nga xam ne ku ci ne seqoon nag yow ay teraanga yoo xam da ngay tiit waaw bu e, yàlla waaw du ci seet ba xam yow da ko dellu si wala doo ko wax doo ko wax da ko sant am ci loolu da ko def nga la yar ak njabootam nag ndax njaboot gi fa tabarakallah li ko xam ci mujj gi njabootam ngay wane yoon mu ngay wane yoon wane ak bëgg sëñ Touba wane ak ak ak ak topp sëñ Touba wane ak doylu ci sëñ Touba waaw ndax xam nga ne ku toll ni roi arab saoudite comme ne jox ma sa projet yi maagaleel la ko te ambassadeur bi la ko wax wóor na ne boo ko dana ko jox nga ne ko man liggéey sëñ Touba du ma ko jox kenn loolu loolu doylu mënu ko weesu loolu doylu ko weesu te euh, ñu bëri bu leen ko waxoon neneen la ñuy doxalee neneen la ñuy doxalee gis ngeen li lu ci ay kaamil li mu jàngalu ci alxuraan ak li mu li mu li mu def lu ci xasida yi xasida yi li ci mokkale ak li mu ci daan jàng dafa dafa yéeme waaw li ci def istishaad di du ko xalaat waaw li muy wax rek mais béytu waa ko wax ma maa ngi nii <laughs> maa ngi nii waaw aaya eh, moo tax ay discours am rek luñ mat mat a lu mat a gëstu la waaw lu mat a defe naa xel tarqiya def nañ ci ay ay liggéey waaw waaw ngoog waaye liggéey yu yu mat yu mat a gën a xóotal la yu mat a gën a ndax mën nañ cee jariñu ba tey ndax saa boo ko boo ko déggee maa nga jàng ko day mel teel a wax waaw day mel jàngal ko te at yi fi dund dañuy wax ne euh, euh, euh, yàgg na àdduna waaye guddul fan lool ndax soixante quinze ans daanaka ci sax ba bëriwul daan koy dépassé léegi dem quatre vingt dix quatre vingt cent yàlla ñu yàlla mayul toll noonu waaye te wut soixante quinze ans yi dund dafa remplir boo ci dindee at yi muy xam-xam ak at yi toog biiru suñu ba faaw moom turam moom dootu fi far ba faaw te loolu ci lu mu liggéey la ci lu mu liggéeyal njaboot gi la lu mu liggéeyal la lu mu liggéeyal diine ji lu mu liggéeyal réew mi waaw bu ko defee rek eh, ñu ñaan rek bis bi sax ñu àgg ci ak jàmm di ñaanal sëñ si itam yàlla yàlla yokk yokk yokk yokk wér yàlla gudd la fanam guddal suñu fan ñun ñëpp yàlla aar ñu aar njaboot yi waaw te yàlla taas ci barkeb Cheikh Abdou eh, dafa am ay jamono loolu da daaneel lu xorom sama diggante ak moom la moom tam bu yàlla dogalee eh, ñu jógee ci njàng mi dafa am projet bu ñu xalaat waaw ci njàngaleem mu rëy rek ak ak Eh, eh, maanaam ci gàttal dafa am benn projet hôtel boobu bëggoon def fii Touba def def nag samay plan sama yëf yi faa nag am sama terrain am autorisation boog yëpp amoon naa ko mais nag bala ma ci def dara nag dama ci waxtaan ak sëñ bi sa sàkku ci eh, xam nga kuy doo jóge ci ñàggum boo wax da ngay defee ne li ngay wax moom da nga ko mën <laughs> wax ak moom gis muy muuñ rek ne quoi ndax dañu am loo xam adduna day dox boo demee Madinal mën a war am na dalukaay nangam nangam makkatal moo am na ko te ñu ngi ci saaba te Touba mooy Cheikhu Madina nangam ma gis ñu mu muñ ah tey da xam moom ma waaw <laughs> léegi nag dama xalaatoon nag dafa barab yoo xam fu ñu dalal ay gan ndax dëkk xaw xat xam nga suñu kër yi d'accord kàlla ni mel kii na waaye day am ñoo xam tàmmuñu ko bëggoon nag fàggu barab bu ñëwee danañ dallu nangam nangam mu nekk mu nekk barab yi ñu yaxantu bu ñu liggéey bu am dara mën cee kii ma xam ne waaw mu déglu moom noppi nag mu ne waaw loolu de baax na lool waaye nag gan maanaam eh, eh, eh, nim la ci nim la ci tege ci yoon ak ak lam da ciy déel mooy yéeme mu ne gan day ñëw ak jikko ju soo jikko ju jikko ju ko soob ku ñëw jikko ju la soob nag kenn du la indi fu ñuy wattu te yow ci ñi war a tëkk bi nga bokk loolu bu ki dem bi de maa ngi xool plan bi plan bi dama ko dugal ci mbokk yi <laughs> dem bu wéy bi rek maa ngi xool ba xam bu nekk ci te architecte bi Moussa Fall moom defaloon plan yi xam nga Moussa Fall moo ko daan defal moo doon defal ñoo yokk jumaa ji yëpp mu daan ko Abdou Karim Fall waaw moom moom la ñu booleel mu def étude yeeg plan yeeg yëpp ba ne nag ba contacter ay banque ba ñu toog ay financement di ñëw nag da daal moom ndigal la ci des léegi mu waxa waxa ba ne mu ne waaw euh, gan de mu dama mën gan day ñëw jikko ko soob ku ñëw jikko ju la soob nag day su day su ko fu ñuy wattu te yow ci ñu war a wattu bi nga bokk toogal rek da nga daje xéewal da nga daje xéewal googu nag ak toogal rek bu ñuy laal lam def ci teg ba léegi duñ ci duñ ci <laughs> nga xam mu mu mu njàngale. waaw waaw raisonnement bi ngay dégg raisonnement bi. gan day ñëw jikko ku soob te mooy li am. waaw te ku ku ñëw jikko lu soob nag kenn lu fu ñuy wattu. waaw fu ñuy wattu te war a bi nga bokk. ginnaaw dafa fay bu xasee fay nan dama fay sama. waaw sama waaw waaw dama fay sama xaalis rek yow seen yoon nekku ci def sama néeg la may def kii si yoon ngeen nekku ci <laughs> waaw. nga xam ne rek ak yu bëree bëri yoo xam ne te noonu la jàngalee réew mépp nag képp ku mos a jëflanteeg moom ku mos a jëflanteeg moom noonu la jàpp jàngalanteeg yow du du bëgg nga def dara lu ñuy lu ñuy lu ñuy xebete yoon wi wala dara lu ñuy yebe yoon wi wala dara loo xam ne ko gis ne ah, ah xanaa nangam ak nangam am na jamono lu mu naajte daaneel dañu fay natt ñu jël moom mooy liggéey Lonase dama faa def semaine génn ci Lonase genn mooy daal waxuma la sëriñ bi waxuma la Tuuba waxuma la alxuraan ji waaye Cheikh Abdoulaye bis bu digg na maa nga Lonase xaw ma lu ma koy jàkkaarloo moom ak lu ma koy wax bu ne ma loo fay def xam ne moom <laughs> nga xam loolu bokk na ci li tax a te boobu mi ngi waaw boo jël lim mi ngi fi. muy koo xam ne sax bi ma ko mujjee gis ak bi mu làqoo soriwul daanaka mën a wax ne semaine daanaka semaine wala ñaari semaine boo ga xam nga ci koor gi la dem fekk ma dem fa ak suba bu xaw a daaj nekk sëñ Sàmba nekkee booba sëñ Sàmb doon traduire moom la war moom lay moom la koy tàggatoo moom pour ñaanal ko pour ne Maroc vérifier eh, ko jaxasoo moom la dugg ci moom yàgg lool ndeysaan ma door a dem nag joxaare ko kaamil te yàlla dama dimbali woon itam saa bu ma koy ziare dama ko yóbbul kaamil waaw ndax xam ni mel ci alxuraan waaye ma gis saa bu ko joxee ci dënn bi da koy teg na sëñ Tuubaa def xam keroog kaamil bu ma yóbbaale gannaaw ba sa gis naa ko mu naan ma mu doon sa kaamil bu rafet sa kaamil bu rafet na lool de mu ne ko alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla waaw léegi nag ci lañ ko ziare noonu ci koor gi xam nga ba ñu war a rek la dem Tuubaa Belal après ma ànd ak sëñ Modou Boussa ak sëñ Sam moom fa yàlla def bokk bi ñuy dem Maroc ñoo bokk avion waaw bi ñu jógee dem Espagne eh, am fa semaine dem Italie fa la ñu xeexee bu fekkee mu di 89. Euh, xew xew bu diis lool diis te métti lool te métti lool ndeysaan waaw bu ko defee rek mooy koo xam daal sëñ Abdoulaye ni a xamee daal mën nañoo wax lu ci rek yu bari waaye li ma wax nekk point bu ne mën nañ ko tas wax lu baree bari loo xam mën na caa jëriñu waaw ci digganteem ak mbokk yi digganteem ak alxuraan digganteem ak Serigne Touba digganteem ak dëkk adduna sax chef chef daay ci adduna sax waaw mën naa ñoom ay relation yoo xam ne lépp relation respect ak euh, ak ak ak ak xam boppam waaw ak personnalité murid bi mu imposé nag moom waaw personnalité murid boo xam ne moom fi nekk de ku bëgg nuru murid sax da nga da nga sol bàyyi laat <laughs> waaw boo solee bàyyi laat rek ñu xam la am na jamono loolu ñu bari dañ koy boo dee murid xew a nëbbu waaw da nga koy xew a nëbbu ndax booba waaw kon nag bu defee rek ñu sant baax rek xam naa bëgg ñu gën a guddal ñaan rek yàlla eh, ñu àgg ci ak jàmm rek te liñ ci raatan lépp yàlla da defal ñu ko te yéen ñu leen sant leen sant yéen ñu boole ci liggéey bi waaw ndax liggéey yi moom ku la ci boole rek bëgg naa dimbale waaw jërë ngeen ñëpp la waaw jërë ngeen jëf yàlla na yàlla yàlla na ko te yàlla taas ñu ci barkeem wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mamadou Mamoun waxtaan wi am na solo lool tabaarakallah jàngale na yeete na yaatal na itam indil nga nu wet yu bari yu wuute ci sa Abdou Lahad yoo xam ne nees na cee jànge nees na cee roye ci wàllu doylu personnalité gëm sëriñ Touba ubbiku yaatu dënn xam-xam macha allah wet yu baree bari indil nga nu ko ci diggam ak kilifay diine yi diggam ak bokk yi sa digganteeg moom tabaarakallah diggam ak Cheikh Mamadou Fadel waxtaan wi yaatu na am na solo lool noo ngi lay ñaanal suñ borom euh, guddal fan wi. yokk wér gi. Euh, yéen yi nga am ci liggéeyal gu sëriñ Touba sunu borom may la ci kàttan ba nga def ko ni nga ko bëggee. Euh, di sant mbokk yi nu àndaloon ci jataay bi. di fàttali rek ne noo ngi waajal màggalug sëriñ Abdou Lahad ni nu ko baaxoo defee di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite di ñaan nu àgg ci ak jàmm kon lii mooy jataay bi ñu bi ñu leen indiloon ci waajtaayu màggalu sëriñ Abdou Lahad yàlla sunu borom yàlla na nu may ak dégg akuk topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.